ginnaaw bu ñu sante le coordonnateur Mamadou Mbodj ci appel bu rëy bi nga xamante ne lancé na ko képp koo xamante ne bokk nga ci réew mi te am metit ci li li fi xew sàcc ndënd nag yomb na waaye foo koy tëgg li ñuy wax président Macky Sall lu yomb la mooy na mu defoon ca xelam di waajal ay bagaasam mu wéy di leen waajal ndax amul kenn ci réew mi ku d'accord le 3 avril bii di ñëw incha allah Macky Sall di desaat ci bopp réew mi loolu kenn du ko négocier ci réew mi ba ca topp mooy ku mu neex mën ngaa jël sa kàddu wax ko ni la neexee soo faree ca moom mais li am solo mooy li xewul fii ci 2000 2000 lay tàmbale ba ñoom alternance en 2012 ñu amaat beneen alternance 2024 bi Macky Sall du ku ñu nar a xañ alternance bii ñu jëm incha allahu taala ba ca topp dafa mel ni daal ku yor benn fromage di ko grignoter ndànk def na ko ca juróomi at yu njëkk ya bi mu jëlee réew mi ne juróomi at lay indi mandat bi daal di jëlaat defaat ay subterfuge ba dem ba defaat ca ñaari at bi mu ñëw toftal ci juróomi at xam naa doyalul ci pale bi mu ne léegi il faut que muy coof ndànk-ndànk soo xoolee coof bi mu coof sax daanaka su élection yi nekkee le 15 décembre moom mi ngi bàyyi pouvoir bi février dafa mel ni amaat na at te kenn waru ko may même simili bi gën a ndaw mu toogaat ko ci bopp réew mi donc li ñuy wootee dans la sincérité de l'action ou des actions que nous allons mëne dañuy woo tous les Sénégalais fu ñu mun a nekk ci réew mi ñu woo tous les candidats nañu bàyyi di def ay déclaration ba pare tëju suñu biiri kër na candidat yi jóg taxaw jiite combat bi bañ a a jël xale yi teg leen ci kanam parce que c'est important na candidat yi jóg la prison la prison yaram lañu fay téye mais pas xel parce que l'esprit reste en pérégrination suñu ko jàppee beneen ba ca topp beneen ba ca topp te am solo lool mooy président Macky Sall su amee problème ci biir famille nañu ko régler seeni biir famille ñun nous avons nos candidats te am na lu rëy sax lu am ci ñun mooy nous avons été très généreux ñun ñi nga xam dañu recalé ñu d'accord en ak candidats yi nga xamante ne tànn nañu leen ci suñu biir loolu c'est l'occasion d'ailleurs de saluer la grandeur du président Ousmane Sonko ci li mu def xolal yàgg nañ fi tëj yàgg dañu fi tëj ay nit saa yu leen tëjee ñu nangu mukk seen Sogo nekk candidat ci réew mi c'est la première fois nga nit ñu tëj ko mu am générosité bàyyi nga topp ca moom ne nekk leen candidat loolu c'est à saluer beneen bi ci topp nag mooy un message que je lance à tous ces prisonniers yu nekk ci ci ci les geôles de Macky Sall li ma leen di wax mooy seen yaakaar tasagul parce que le 3 avril dañuy dem ci alternance bu bees nu sommes en train de pour que cette alternance am nous allons le faire sa avec intelligence Macky Sall mënul dugg suñu biir jaxase ñu parce que li ñu gëm ñun te ñun ñëpp toogee ko mooy li mu li mu mun a géree ñi mu àndal mënul ko géree ñi toog fii soxlawul ci moom lenn pour di survivre baa ngay dund fii ci réew mi moo tax ñi ngi santaat la presse di leen ñaan jéego bu ñu teg dañu bëgg di leen gis suñu wet ngeen ñu jottalil message bii ñu war a joxe ñun toogatuñu d'ailleurs maa ngi wax sax sama mbokk yi laaj na fan yi di ñëw kenn ku ne gàddu sa benn matelas ñu xool la xewoon place Tahrir ñu reprendre ko fii benn guddi boo xam dañuy toog ne ko da ngay dem wala duñu fi jóge donc maa ngi sant ñëpp di leen gërëm jërë ngeen jëf Yàlla